Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. asalaamaaleykum mbokk internet si Setsima TV tey nag bu ngeen ñëwee fekkaat ma fii ci HLM Grand Médine ñu àndandoo seet ci beneen ndaanaan ndaanaan loo xam ne woy na ci Sénégal ba ñëpp nangu ñëpp nangu ne macha allah baatam baatu wurus la dafa mën a woy lool waaye ñu toog ay quelque temps déggatuñu ko xamuñu woon ci lan la nekk. tey maam exclusivité ñëw fii fekk fi Petit baara nar waxtaan ak moom ci Petit baara lu mu nekkoon lan la nekk di waajal waaye yan surprise la dencal sénégalais yi ak fansam yi nga xamante ne bi dañ koo namoon lool sur la scène musicale Petit baara topp leen ma mu dugg ci biir kër gi loxoti ko waxtaan ak moom léegi léegi ak sama caméraman Ousmane Noreyni tout court. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na def. ana Petit Baara ndaanaan bu mag. bu Baara moo ngi fi lii de moom surprise la tey. surprise bu mag a ngi nii. gis excellent dal leen ak jàmm. merci beaucoup. ami Cheikh internaute ni ma leen ko doon annoncé léegi ci bunt bi ndaanaan bi nga xamante ne bi moom laa ñëw seet si ci këram muy HLM Grand Médine euh, moom laa toogal nii muy euh, Petit baara moom dootuñu ko présenté ci Sénégal ginnaaw parcours bu exceptionnel euh, bu mu def naam mu ngi ci yoon yàlla na ko yàlla yeggale waaye itam nekk koo xamante ne bi tey bëgg nañu waxtaan ak moom ci lu bari par rapport ak jaar-jaaram ak carrière am maa ngi lay nuyu. waa DJ di nuyu waa Setsima TV di nuyu waa Njaareem nga xamante ne fa laa jóge muy suma dëkk di suma Paris di nuy waa Parcelles tamit 1 ba 26 ak waa Asilim Grand Médine bi nga xamante ne fi laa dëkk di nuyu suma sëriñ sëñ Moustapha Mbacké ak suma ñaari waajur ndaxte lépp lu ma am te yàlla ak moom la sëñ Moustapha Mbacké moom noonu di nuyu tamit suma waaye staff yëpp yi may liggéeyal waaw tey daal xam naa ne moom ndomba du yomb de. alors du du yomb benn yoon Petit Bara je rappelle que euh, suñu fàttalikoo tuuti euh, donc remonté temps yu Petit Bara. moo fi doon àndandoog euh, Babacar Seck du kaw Petit Bara aussi moo fi reprendre benn chanson boo xamante ne bi tey euh, donc c'était euh, typiquement Naija et puis ñëpp xam ko ci à travers sound boobu di mbalax day wax mu wër àdduna alors loolu yëpp succès la mu àndandoog Viviane àndandoog Kumba Gawlo donc ci ay scène mais damay remonter tuuti ñu wax Petit Bara ci sa passé Bara d'abord fan la tàmbalee ay way lan moo ko dugal ci ay way. waaw Baara moom li ko dugal ci ay way nag moom xam naa ne deret la quoi. Mm-hmm. deret moo ci njëkk parce que soo juddoo ci famille géwél mm-hmm. sama yaay doon way di way ma ñëw fekk xam ne way wi neex na ma ma ma ma doon ànd ak moom yenn saa yi buy dem xew. damay damay damay damay dama koy topp <laughs> dama koy topp yenn saa yi mu ne ma dëppal ma ne ko yaay du ma dëpp damay dem mu ne ma doo dem après nag ndeysaan euh, day dem su ko defee man ma daal di jëlaat sareet toppaat ko ci dëkk ba mais su ma demee bay commencé di way ndeysaan ci la ci la xolam di sedde waaye mu ngi noonu daal way daal moom suma biir kër laa ko donne moom donne wu ko fenn jéggaani wu ma ko fenn mhm. waaye. da ko donn deret la dafa dëggal ci carrière professionnelle euh, ñu ngi la njëkk découvrir en tout cas ci euh, Babacar boo xamante ne bii su ma euh, juumul wuyu ma donc way bi nga def ci ay kër donc mu naaj sa diggante ak ñooñu lan la woon. waaw Babacar suma diggante ak moom moom li ñuy wax gars yi naan dafa jéggi dayoo. Euh, parce que ma sëriñ moom ma ko joxoon sëñ Moustapha Mbacke moom moom moo ko jël euh, ne ma Babacar mii laa lay dénk mu mu jàngal ma lu bari mu def ci man musique def ci man tekk ak teey def ci man lépp waaw baabakar Seck waaw bi ma jógee ci ñoom aale xaadim mhm. Kaolack la moo sëñ bi jël jox ma Babacar ma nekk ak moom di liggéey ak moom mu def ci man lu bëree baree bëri waaw noonu daal la suñu relation demee sama sëriñ sëñ Moustapha Mbacke moom moo ko kii. nga nekkoon ci moom donc euh, di ko defal ay kër ngeen di àndandoo ba benn jamono gisatuñ Baara ak euh, Babacar Seck mu mel ni après euh, carrière musicale bi dafay démarrer dëgg Baara dafa amoon intention ber yoonu boppam def groupe am wala problème moo amoon nga génn fa. non sama diggante ak Babacar nag moom problème <laughs> dafa ni dafa doon ni jàng jàngan boo mokkalee sa daara mais mokkalugu ma nag mais pour nga jël say responsabilité il faut nga génn euh, mën a xam ne dangay ngay fay luyaas di nga am soxna xam nga loolu rek moo taxoon ma jóge ci moom xam nga nekk di def sama carrière solo nag. Mm-hmm. naa jël sama responsable ñu xam ne baaraam mooy demal boppam ci lépp waaye moom nag gunge na ma li ma war a gunge mais tamit am nga àdduna moom day dem ba fenn foo xamante ne doo jël lépp nag wéer ko benn nit après moom day sonn li lim la bëggal sax moom dootu ko am xam nga moo tax euh, nag 2014 ma ber sama yoonu bopp di ci liggéey jël suma lépp téye ko suma loxo di liggéey loolu moo fa jëlee mais pas dara ah. du problème <laughs> non bi nga bi ngay nekk ci baaba Babacar gis nañ ne euh, euh, dakaar nga nekkoon donc euh, après bi nga jógee ci Babacar da nga mel ni ku replié wu nekk Thiès. non bi ma jógee ci Babacar maa ngi dakaar ba léegi. Mhm. maa ngi Dakar musuma bougé Dakar. lu tax nga am base Thiès parce que doon nañ gis nga joué ci pale Palais des Arts lu bari. Ah, pale Palais des Arts naa fa quatre ans Phoenix. Dosso xam nga cees moom dama fa dama fa nekkoon. dama fa nekkoon mais li ma nekkoon Thiès Thiès yëpp maa ngi woon dakaar fii leen sama base ne woon mais dama fa doon joué ji chaque mercredi ak Abass yi ma koy nuyu après nag ci laa fa def sama groupe bopp di joué Thiès ak sama groupe bopp Washington xam nga joué Palais des Arts ak sama groupe bopp xam nga mais nag su ma duggee Thiès tamit yàlla ak Abass yi la. moom ma fa dugal xam nga ba waa gépp bëgg ma ba ma dem ba fay jouer suma bopp waaye loolu nag mooy suma relation ak waa Thiès ñu ma ñu doon sumay xarit dëkk ba neex ànd bi neex sama xol di sedd ci ñoom chaque jour ma leen di nuyu au passage xam nga ñoom Kiné Diop ak euh, maama si waaw ak les groupes les amis pour la pour la vie <laughs> alors bëgguma bëgguma dugg ci polémique mais Baara Baara tout le temps dafay nekk fenn ba mu yàgg après dafay dafa euh, suñu fa jógee ñu dégg ay bruit ci ginnaaw parce que Baara nekkoon na ci Babacar Seck donte bi nga fa jógee dégg nañ ay bruit ñu ne ah euh, problème mu xaalis moo leen séparé parce que am ngeen ay problème problème mu xaalis affaire yooyu ñun nga nekkaat ci euh, keneen ko xamante ne bii sa manager la woon ñu koy wax Pape Faye hmm. après ñu ne ay problème xaalis ngeen ba problème yu xaalis yooyu muy am wala loolu ci showbiz bi la. loolu la yow ci yow laa ko déggee de. Hmm. problème xaalis parce que man xaalis duma boole ak doomu aadama. ak Pape Faye la doon jotee. Pape Faye jotewul dara Pape Faye sama seex la. <laughs> xaarim Pape Faye suma seex la dañ liggéey liggéeyatunu xam nga parce que bu ñu ngi ko engage mu nekk yar beneen liggéey boo xamante ne xam nga soobis dafa fiir mm-hmm. dafa fiir après nag ci laa ko nànd xam ne mënatul li sama activité di laaj après ma xam nga ma libéré ko mais musuma am ak nit problème mu xaalis moom moo ñëw mu ne la amatul temps wala yow yaa ne ko amatoo sama sama sama jot donc il faut ma libérer la ko non en fait euh, xam nga avec le temps nit bu ngeen di liggéey. avec le temps bu amee dara lu xew rek. Mm-hmm. après yow dangay xam ne lii dina mën a dem wala mënu dem. fekkee borom xel nga da xalaat. di mën a xam ne lii day dem wala lii du dem. Mm-hmm. tey koo doon gis chaque jour chaque instant chaque minute nga dem ba boo koy gis. ci semaine bi benn yoon lay doon xam nga loolu tamit da ngay xam ne projet yi nga jógoon pour def ko ak ñooñu noonu mënul dem après yow danga leen di noppal après nga gérer ko sa bopp parce que nit ki li mu mënal boppam xam nga ci bi muy metti am na ñeneen ñoo xamante ne mënuñ ko quoi. Euh, voilà exactement Bara est-ce que du loolu moo indi tey euh, benn genre blocage un peu laa koy tuddee ci sa carrière parce que boobu nga doon liggéey ak Pape fay dañu gis ne baara donc mi ngi woon ci benn lancé boo xamante ne bii da nga doon dégg Bara fépp quoi boîte di dakaar amul fu baara doon joué guichet fermé à Thiès également et puis single yi muy génne nekk carton. donc nga dem ba sa staff commencé lâcher est-ce que du loolu moo tax tekkaaralu baara après quelque temps parce que mooy sa raar bi ñu ñu ñu gëj a toog dégg la et tout du loolu la. waaw raar bi nag moom li ko waral mooy dama liggéeyi woon. Hmm. dama liggéeyi woon ci leneen. baara. Baara da nga liggéey woon dama lay bàyyi dama lay bàyyi nga eggali ba pare man ma wax la nit ñi lan la ñu wax. <laughs> raar bi dama liggéey woon. Hmm. damaa nekkoon ci leneen liggéey leneen. mais mais ñu bëri ñeneen ñi wax nañ ne Baara bàyyi na way dem na Europe pour Modou Modou ji ñeneen ñi ne Baara dañu ko liggéey actuellement baatam mënatul way. pour sama baat pour sama mënu mënu ma way li nga dégg keroog ci sama morceau bu bees bi lan la. non bi nga génne waa tey moom quand même ñëpp xam nañ ne donc Baara bi fi nekkoon ma fi nekkaat ba léegi macha allah ci voix bu nice mais après rumeur yooyu yëpp Baara. gina ko daan jël duma ko wey ku ñaaw duma ko wey ku réew ba doo la xamul njoowaan gën koy joomuy joowaanu xaadimooy fa baara newoon ba tey jógu fa liggéey bu metti rek moo ma jàpp nee naa la man de carrière laa soxla bëgg naa bës waaye bu jaar ci yoon. ndeysaan macha allah euh, am internet Setsima TV donc bu ngeen ko euh, déggee xam ne kii way nii macha allah baatam bi dara donc rumeur yooyu ñu dégg ko baara dañu ko liggéeyoon et tout donc loolu moom xam naa ne rumeur la mais nan nga dundee rumeur boobu wala loolu egsiwul ci yow. waaw egsi na ci man parce que wax nañ lu ne wax nañ ne baara dañ koo liggéey baat bi baaxatut wax nañ liggéeyatuma wax na ne dama bàyyi suma loxo xam nga mais nit ki nag lim gëm moom la gëm quoi man surtout man parce que man dama gëm ne man li may def suma carrière la te am na ci ñoo xamante ne nangul nan ma te ay mag lan yàlla nag bu defee xale bu ndaw ay mag nangul ko mu nekk ci carrière kon daf ko war a fongu teg ko ci yoon moo tax ma teg lépp ci yoon tey maanaam génne morso buy def deux mois après mu fay maanaam génne morceau buy def cinquante ans moo ma ko gënal man mhm. baara mhm. waaw ci loolu daal laa nekk. Mhm. mais tamit rumeur yooyu defuma dara ah, parce que man dama tayle sama bopp quoi. alors euh, dafa am benn tendance boo xam ne bi mu ñëwee. Mhm. tendance boobu ci la ñu gëj a dégg baara percé muy tendance su TikTok tendance su def way mu dugg ci TikTok bi tendance su challenge nga xamante ne bii diggante euh, ci la ñoom ay Sidi Diop Bass Thioung ñeneen ñi xewee est-ce que itam du loolu moo moo xaw a freiné baara parce que baara sóoraalewul woon loolu trop torop ci musique am comme carrière la bëgg a def. waaye su fekkee morso tendance rek tey am naa ko am na ay morceau xam ne nag morceau tendance bu ànd ak texte dafa dàq quoi. waa mhm. di waytem euh, quoi. Mhm. en fait tey ñun. Mhm. ñoo mën a yee askan wi. dëgg la maa ngi leen di féliciter ñoom ñëpp morceau yi mu ngi nice xam nga mais comme li ma la wax rek tey Petit Bara ku ne xam na ne ba mu génnee. yaay depuis 2000 lan ba tey boo ko tegee ñu foog ni tey la morceau boobu noonu ci loolu laay liggéey mais suuraalewuma tey tendance man hmm. leneen lu nit di def noo moom la concerné quoi d'accord mais man moom suma carrière laa xool te fi ma visé man xam naa ko quoi alors euh, Baara damay ñëwaat ci leneen ba léegi man rumeur rek laay dégg parce que aussi Baara. Euh, euh, <laughs> Baara de Baara ànd na fi ak euh, Viviane pendant quatre ans. Baara côtoyé na Kumba gaawlo ñu dégg ne Baara aussi mag ñooñ mu daan àndal ñëpp dañu jékki-jékki bàyyanteeg moom parce que Baara dafa artiste la boo xam ne dafay teel a yëg succès dafay dafay yëg boppam ba dafay xaw a ñooñ ñooñu est-ce que loolu moo waaye ki lay wax lii moom dalaa topp di ma yàq la nu mu demee noonu. Kumba sama yaay la. sama xarit la sama yaay la Matar sama mag la sama freer la. mu ba tey seen diggante. billaahi wallaahi wa taalaay aw ma ak ak benn artiste xaj ak seen. Mm-hmm. barke sëñ Touba Viviane tamit sama yaay la Babacar Seck moo ñu boole woon may defal Babacar Seck première partie ba ci yàgg ma koy awu. dara mosuma boole ak benn doomu aadama ci affaire lu reewande wala xaalis walla dara parce que yow xam nga ne njaareem lañ jógee ñun dañ noo yar loo tax sax ñu naan baara dafa timit wala nangam sàngam timituma dan noo yar nit ki mënul laa yar ba pare nga ñëw liñ la yare nga koy génne di def leneen mais tey boo fekkee baara ci kaw seenam nga xam ni ci li muy liggéey daf koy liggéey ak firi mais nag boo wàccee sama mbubb artiste dama koy summi teg ko ndalee doxe ak taalibe gi te taalibe ji ci laay waxtaanee ak ñëpp kon mënuma cee wax kenn dara wax dëgg fa yàlla. d'accord euh, loolu mooy loolu mooy souvent euh, euh, caay-caay gi nga xamante ne bii ba fa nekk ci biir bis bi dafa defante gi nga xam ne bu ñu la yaree wala nga nekk doomu daara doo ko mën ak fi nga jógee ci Diourbel mais aussi loolu est-ce que taxul nga dund affaire ay Cuba parce que Baara dund na ay Cuba soit nga wax ko tey ci Setsima TV internet yëpp gis ko wala nga bañ ko wax mais Baara dund na ay Cuba yu méttee méttee méttee ay nit yoo xamante ne bii dañu ko soxoree wala ay nit yoo xamante ne bii jot na dundanteeg ñoom gis na ci showbiz parce que dégg naa dégg naa ni Baara moom xam nga fa kastal yeeg yenn gàllankoor yi ba dafa Baara dafa découragé woon quoi. waaw waaw waaw loolu nag moom am na am na am na am na quoi parce que showbiz moom dafa salte dafa salte quoi euh, te man nag euh, dama nekk koo xamante ne tey dama gëm yàlla dama gëm yàlla mm, dama jël sama lépp te ko sama bakkan bi comme ko waddul rek. xam naa yàlla dencal na ma leneen lu ëpp loolu noonu mais en fait tamit ci carrière laa ne te musique damay dégg ñu naan du ëmb day xëy wasin mm-hmm. mais day ëmb man loolu nanguwuma ko musique day ëmb day day day ëmb neuf mois wasin ko mais nag ki koy ëmb rek moo ko mën a xam waaw doo ko partagé mm-hmm. mais nag euh, am nga man ñi may faqastal ak ñi nga xamante ne dañ may xeex ak ñi nga xamante ne tey ñu ngi wër ci dëkk bi di yàq samay der ku ci nekk di wax di wax ci petit baara lii bari baara nangam sàngam yooyu noonu baal naa leen nga jëmmi seexul xaddim barke borom Tuubaa baal naa ñëpp parce que man man sëñ Moustapha Mbacke moo ma yar ak soxna Ndey Mbacke bi mu tuddee suma taaw man xamuma lu ñaaw yarewun ma lu ñaaw mënumaa def lu ñaaw bu ma nit defee lu ñaaw it baal naa ko ngir jëmm Seydina Mohamed waaw toppalu ma kenn dara ku doon def dara moom fi mu ne nii lu mu doon def waaw moom fi mu ne bu yóbboo rek eh, lalle ay lalam te xam ne. baara jógaat na. te xam ne dara dootu ci jàpp. alors fi mu nekk nii si eh, jogaan nga c'est vrai que jógaan nga parce que euh, dunu nga affaire mm. donc toog nga benn instant stand by musique bi mais nga jekki-jekki ñu déggaat la nga fëlaat fu nooy baara génn benn single bu doy waar wax ko ci wàllu location comme ni nga koy wayee tem ngay way euh, single bi euh, war na ànd ak ay projet projet yi lan la waaw single bi ànd nag ay projet projet yi déjà def nañ ci benn concert ànd ànd nag ay concert yoo xamante ne nas international la ak national war nañ dem Thiès war nañ dem Kaolack euh, Fatick bu Diourbel bi dèjà def nañ ko ba pare war nañ dem euh, Koungheul ak Louga incha allah waaw war nañ def euh, daal tournée nationale fii nii Sénégal war nañ def tamit international incha allah ci kàttanu yàlla waaye ñoo ngi ci projet boobu noonu album bi tamit mu ngi ci yoon bi incha ay ay album nag laa waxuma benn de. Mhm. staff bi defaraat nañu ko ba mu dëgër actuellement comme gars yi nekkatuñu fi ñi la ñi la ñi la daroon euh, donc ñen ñoo fi nekk fi mu nekk. wala laa nii ñi fi nekk moom waaw suma waay la ku ci mel ni Zak Mbay Karim xam nga Issa Faye xam nga Ibra Fall Astou Ndiaye. Euh, nekkoo ci benn label. nekk ma ci label lépp loo gis nii nii nii baaraa koy liggéeyal boppam ba léegi waaw parce que. mën naa ne tamit lépp lu lu xaw a téye samay mbir tuuti problème mu label bu ndaw ci la bokkoon mais maa ngi ci sant yàlla am nga parce que tamit xam nga yenn saa yi sax gars yi ñu nga génn ñu ñu ñu signé la contrat rien que pour tardé la parce que xam nañ ne waa ji bu percé du baax. ça veut dire que da nga nekkoon ci benn label boo xamante ne bii tey ma su fekkee ni baara dafa xaw a retard tuuti wala am na lu ko metti tuuti ci musique bi mooy label boobu mu nekk. waaw waaw mais méttiwuma ah. label ban label la. méttiwul mooy bi ma ne woon mooy bi ma ne woon rek ñoom boo leen gisee ci samay kii ñoo ngi ci mais xam nga man moom du ma ma du laalaat loolu daal. baara jóg na mu ngi liggéey ci kanam incha léegi fii ak six mois ñu xam ndax baara lim liggéey woon bari na am déet. baara soxlaatul label donc. non laalaa nii ça daal. <laughs> solo kese sans label alors euh, Baara soxlaatul label mais Baara soxla na peut-être ay artistes yoo xam ne ñoo nekk ci kaw yu ko booster par exemple Wally Seck doo ko côtoyer wala nga côtoyer euh, Pape Diouf parce que euh, Baara aussi sa relation ak ñooñu lan la. wooy suma relation ak Wally waali moom suma xarit la suma suma Baay Faal la parce que ndeysaan bi mu njëkkee fekk suma single ci Papis Ndiaye. dafa ñëw dafa ñëw ndeysaan ni mais kan moo woy lii Papis na ko kii benn booy la mun ne ko mais booy kii mën na woy ah, kii kan la ndeysaan Papis na ko kee kee toog la ndeysaan mu ñëw xam nga ñu waxtaan foofu noonu ah, mu invité ma këram lu yàgg nag waaw lu yàgg la depuis 2009 euh, boobu ba léegi tamit ñu ngi gisee ci ay programme mu ngi nice xam nga dëgg fa la moom Baye Fall la xam nga sama xarit la sama xarit la waaw ñu ngi koy dund bu baax mu ngi naay macha allah même Pape Diouf suma suma grand la suma mag la mu tamit doon doon suma frère xam nga mu doon suma frère bu baax moom tamit waaw man daal li ma la wax rek awma kenn xaj ak seen jaad na mais Baara bu doon soxla par exemple euh, ndimbal ci ñan la koy soxla bu doon soxla ñu ko jàppale euh, ne dafay lancer appel ci public am lay doon euh, ci waa diaspora bi lay doon ñi nga xamante ne bi gëm nañu Petit baara ci lan la ñu mën a jàppale Petit Bara tey. waaw Petit baara mu ngi lancer ñëpp appel que tey ku ci mën a ñëw mu jàpp ci ci côté xam-xamam ak côté lu mën a jëmale nit kanam ci carrière na ñëw mu jàpp ci. waaw mu jàpp ci bu baax a baax a baax. parce que Baara ñëw na Baara est là way nga gëm te moom ngay def. waaw ah, moom laay def way laa gëm te moom laay def maanaam tey nit ku la jàppalee ci xaalis bu xaalis ba jeexee seen relation jeex. Mhm. nit ku la jàppale ci benn kii kon tey day mel ni loolu moo tax mais kuy jàppale Baara ci xam-xam ci xel mu sell ba mu mën a perse ci Sénégal parce que Sénégal dund fi dafa metti Sénégal dund dafa metti moo tax nan ñëw rek ñu jàppale ci xam-xam ci xel mu sell ak euh, ci conseil yu baax yoo xamante ne Bara bu ko jàppee dina mën a def carrière comme suma papa Youssou Ndour waaw loolu daal laa bëgg. alors merci beaucoup Petit Bara donc yaakaar naa ne ñu ngi ci terme émission bi lan ngay euh, tàggatook euh, fans yeeg nga xamante ne bi dañu laa bëgg dina la suivre. benn morceau morceau morceau bi bu bees bi génn. Mm. <laughs> askan wi ñoo li nuy dund ci kër ni metti na weer jot na. feyuma nga génne ma ci samay kanamu nawle metti na man naan la weer ak weer de gaaw xanaa sa yaram yow du daw ak samay doom yu ndaw te dëttuma ba nelaw ay waay lii de ñaaw na li góor di dundu ngala bu ko saay-saay bi xam li góor di woye soo ko xamoon bilaay soo ko dundu woon ba xam li muy daaj dawal ko yërmande man na la ñaar fukki at man laa def sa kër samay doom fi lan juddoo màggi fi te fii lanu xam xamunu feneen nga xëy bés génne ma toroxal ma ci samay kanamu naw le daa mel ni yërmande bëgg a ci sunu réew ndomba man gis naa ku nu génne diggu bëccëg yàqi bagaasam muy fanaan ci mbedd me ma dellu gisaat ku nu jaay doole nangu këram toroxal ko ki njabootam waaw mu ngi noonu de loolu daal lan def ci askan wi location yi. ndeysaan mu ngi doonu di euh, loo xamante ne bi thème la aussi alors euh, Baara moo ko génne daw leen xool ko ci euh, YouTube donc. Petit Baara officiel waaw. waaw sama chaîne bu bees la képp kuy jàppale Petit Baara. Mhm. képp ku bëgg a jàppale Petit Bara demal nga abonné ci suma seen YouTube Petit Bara officiel ci kattan yàlla lépp fa lay jaar bu soobee yàlla incha allah. alors dinañ la bàyyi aussi nga joxe sa numéro téléphone au cas où yi nga xam ne àdduna bi euh, un peu partout bëgg nañu jàppale Petit Bara wala bëgg nañu ñëw joindre ci staffam euh, ngir euh, mën ko jàppale à travers ay fans club yi nekk ci différentes régions yi parce que je rappelle que Petit Bara fans club yaa ngi Diourbel ñu ngi Louga ñu ngi Thiès ñu ngi un peu partout alors sa numéro téléphone bi ñu la mën a jot. waaw ku ma bëgg a jot da ngay woo ci 78 458. 08 08 78 458 08 08 ku ma ci woo di nga ma jot incha bu soobee yàlla ñu déggoo waxtaane ko waaw <laughs> ndaxte comme ni nga ko waxee rek fépp la am fan ci àdduna mhm. Petit Bara moom Petit Baram àdduna la waaw na ko ñëpp xam nan xam ni Petit Bara Petit Baram àdduna la man leer na moom parce que li may jot ci sumay appel ak li may jot ci suma whatsapp ak li may jot man xam naa ko te ci kanam daal lépp di leer li ci kanam raw li bët. <laughs> alors euh, euh, ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax petit baara yi noonu donc moom lañu amoon tey ci seeti ndaanaan petit kii yombalal affaire yi nag mooy sa manager Mbaye Karim ñu ngi koy gërëm di ko remercier bu baax mais aussi euh, sunu jigéen bi nu fekk ci kër gi. waaw kooku mooy Lili yaa booy. <laughs> Lili léegi noonu. d'accord. <laughs> <laughs> di gërëm Ousmane Noreyni tout court sama caméraman mais aussi di gërëm waa Look Live ah eh, Look Live eh, ay doomu Sénégal yoo xamante ne bi ñu ngi nekk itali ñoo koy liggéey donc mu nekk seen naa ma Madiale fal di ko xamante ne bi vraiment doomu Sénégal la mais xelam yëpp mu ngi ci Sénégal donc mu créer marque bi di ci jàppale ay nit mais aussi di def social di def lu baax ñu koy jaajëfal bu baax a baax marque bi nag képp ko bëgg Look Live donc numéro téléphone yi mi ngi affiché bas de l'écran mën nga dem euh, waxtaan ak ñoom histoire nga gën a découvrir lan mooy Mark Look Life jaajëf Seydina Madiala Fall